bu ñu bàyyee fitna yi fi amoon effacé ko ñiy dugg kaso génn su ko defee jàmm mën naa am mais est-ce que euh, bëgg jàmm aussi war na mën a tax ngay def leneen loo xam ne mën naa yee fitna li ma bëgg a wax mooy ñi nga xam ne dañu cay ñàkk seeni njaboot doon toog di xaar bés justice tranchée ba ñu xam ne kat ñii ñooy coupable yi xam ne ñii kat ñoo créé li tax seeni njaboot dem ci zéro ñooñu tey seen yaakaar yàkkeeku loolu également est-ce que du yeewaat beneen frustration au lieu que ci liñ ci doon xaar muy wàllum réconciliation xam nga l'autre jour j'avais dit que xam nga mm-hmm. loi d'amnistie mm-hmm. c'est pas la première fois muy su ma juumul romb nañ ñoom ci bii bu ko adopté mooy doon dixième fois ok loi d'amnistie mm-hmm. mais la différence entre les anciennes lois d'amnistie et cette nouvelle loi d'amnistie xam nga mooy lan mooy ñu dañu leen àtte ba condamné leen maanaam ñu àtte leen ba condamné leen bañ def seen recours ba nga xamante ni dem nañ ba def ba yoon fi mu yam ci ñoom. Mm-hmm. ñu condamné leen. ñooñu bu boobaa euh, euh, boobu ci la ci la président de la république ci ak may yi ko yi ko li ko. constitution li ko constitution may. Mm-hmm. mu jël def amnistie. Mm-hmm. mu def amnistie fee yooyu noonu. xam nga te en plus xam nga amnistie. c'est pas des personnes qui sont amnistiées. Mhm. mais c'est des faits c'est des faits amnistie yoon daf ko am nu mu ko tëralee. mu c'est la constitution. Mhm. je pense c'est la constitution française c'est l'article 47. c'est la constitution sénégalaise c'est l'article 67. Mhm. et mu am ne ko nii nga koy defee nii ak nii <coughs> mais dafa am loo xamante ni. yoon am lu may loo xamante ni moral ci boppam. parfois da koy bañ nga defee ko na leen xam nga amnistie. imaginez dama lay jox exemple le jeune là qu'on a au niveau des Parcelles Assainies ki nga xam ne policier moo ko tiim visé ko ba mu kii mu dóor ko bal mu yor kii drapeau bi mu daanu na lañ kooku dañ koy baal xam nga dañoo baal ba nga xamante ni. yaa ngi daganal ñaawteef ëllëg. yaa non loolu loolu romb na ñaaw romb na ñaawteef dañoo baal ba nga xamante ni dañoo baal ba xam ne am na ñoo xamante ni ñi ñu rayoon ñett étudiants yi ñu rayoon. Mhm. yi ñu rayoon ça fait même pas deux semaines. Mhm. nee am dañ leen di tamit. xam nga le président de la république n'a pas dit la vérité aux sénégalais. c'est-à-dire xam nga 2021 2021. Oui. quand il y a eu les Jeux Fourrés. bi manifestation yi amee. Mhm. le président de la république dafa taxaw mu ne. Mhm. on va ouvrir une enquête. Mhm. et les responsabilités seront situées. situées. <clears throat> malheureusement trois ans après. le président de la république. dafa bañ ne. dafa bañ ne moom kat ba léegi nii li doon xaar ci moom def ko. li ñu doon xaar ci moom ba léegi defu ko maanaam amul benn enquête boo xam ne tijji nañ ko ba ñu ne ñi ñii ñi defoon lii kat kii nañ ci ñi defoon nii baal nañ leen wala kii nañ leen kii moo ko def wala kii moo ko def xam nga dans les pays yi euh, ñi nga xam ni sax dañuy am amnistie wala ñu def vérité euh, réconciliation pardon et réconciliation loolu yëpp soo ko dégg dañ ci da ngay gis ñu taftal ci vérité mm-hmm. vérité pardon et réconciliation xam nga la vérité mooy lan que la justice soit dite. quand la justice est dite. boo dee après da ngay def. pardon. mën nga ko mën nañ ko accepter. mais la moindre des choses le premier pas tu sais c'est quoi. c'est de définir au moins que la vérité éclate au grand jour. oui situer les responsabilités. quand les les responsabilités ne sont pas situées. Mhm. nga ne yow jéggal nga ñan nga jéggal loolu dafa ñaaw parce que dafa ñaaw de y a eu plus de mille personnes plus de deux mille personnes. qui ont été emprisonnés. Oui. est-ce que xam nga ne ces mille ces mille personnes là amul kuñ ci tëj tëj la ci peine bu grave xam nga ñu gën a bëri xam la lañ leen tëj su dee ñee déedéet <coughs> ñi ci tëj as néew xam la lañ leen tëj participation à une manifestation non autorisée ñu ci peine yi gën a grave bi ci peine bi ci gën a grave lool la léegi ngay dégg ay tur yoo xamante ni sénégalais sax xamuñu ko. ay forces spéciales. force occulte. force occulte terroriste. terroriste c'est des choses yoo xam ne léegi nag. même des rebelles ah? même des rebelles même. non on a on a on gis nga. on a changé de mots on a utilisé tellement de termes. juste pour le simple fait qu'ils veulent rendre faire peur aux Sénégalais. Mm-hmm. mais au finish la montagne a accouché d'une souris li ñu leen xaar yëpp lan lañ mujj mujjul fenn te mais lii dafa dafa doon loo xamante ni. ñoom il croit que ne il joue avec le peuple mais seen bopp la ñuy nax parce que déjà xam nga soo xoolee au niveau de la coach euh, euh, comme Lamine l'a bien l'a si bien dit la euh, la loi va passer parce que soo xoolee benn Bokk Yaakaar Wallu ñoom ñaar rek il font plus de près de près de cent cinq mille députés xam nga loolu ça va passer soo jëlee quatre-vingt quatre-vingt-trois quatre-vingt-trois bien deux députés yi yi kii am yi euh, Benno Bokk Yaakaar am nga jël nga dugal ci euh, vingt-cinq députés yu yu yu yu wàllu mm-hmm. le quorum est atteint mm-hmm. léegi nag xam nga loi d'amnistie c'est pas la première fois ñu koy voté ci dëkk ba pare ñu koy annulé. ñu koy annulé je te xam nga loolu xam nga lan mooy indi la plupart du temps. régime les régimes dictatorial régime régime dictatorial yooyu yëpp bu ñuy dem dañuy voter une une loi d'amnistie pour sang seen ginnaaw. c'est c'est c'est c'est c'est la c'est la la marque de fabrique des régimes dictatoriaux ñoom ñëpp bu ñuy dem dañuy voter loi d'amnistie ma jox la exemple. allez-y Espagne. 1977 le régime de Franco dictateur bu ñuy dem. ils ont voté une loi d'amnistie kii seen bopp Chili Pinochet 78 ils ont voté une loi d'amnistie mais le plus récent soriwul Libéria bi en 2019 loi d'amnistie bi ñu bi ñu bi ñu voté woon ci euh, guerre civile ba fa amoon avec euh, Charles Taylor Charles Taylor mais dañ ko annulé matu ça date même pas de cinq ans pas de cinq ans <laughs> qu'est-ce que dire ça veut dire que c'est pas une loi d'amnistie qui va sauver un régime dictatorial un régime dictatorial un un une loi d'amnistie mënu ci dara parce que la population moo il faut c'est très important que la population sache qu'est-ce qui se passe parce que quel que soit alpha le régime qui va venir la population va faire pression pour que cette loi-là soit abrogée il faut que cette loi soit abrogée et les gens donc donc ma la mais su ma la déggee dafa mel ni Euh, loi d'amnistie bi Macky Sall di imposer ni ñu ko mën a waxee entre guillemets muy imposer les députés bu ñu ko voté tam régime am bu jeexee beneen président bés bu ñëwee toog. forcément bu ñu installé assemblée wala dañuy jeex fexe ba. Euh, c'est ça mais dañ koy dañ koy abrogé. ok dama ne la régime Charles Taylor Charles Taylor anamu il faut que il faut que les gens intéressent l'histoire mhm. Charles Taylor anamu Charles Taylor ma nga CPI. cour pénale internationale. waaw mais ñoom ñi dama ça touche pas la la la ça touche pas la cour pénale ah cour pénale amul amnistie de c'est pas parce que amnistie bi dañ ko dañ ko dañ ko voté Sénégal que. cour pénale Sénégal la concerne les victimes bu leen neexee ñu jël ko yóbbu ko yóbbu ko CPI. Mhm. cette loi d'amnistie n'engage pas la CPI yoonu CPI nekku ci parce que da ngeen a baalantu fële déedéet parce que déjà xam nga la loolu les les les ayants droit wala. ceux qui ont l'intérêt à agir c'est pas à l'état de pardonner man suñu suñu suñu suñu ma yàqale du état bi ma war a baale dëgg la état du état ma man maa war a baale man nag CPI individuellement ñun mën victime yi les victimes bu la neexee ils se ressemblent bu élection yi jeexee même su fekkee beneen régime ñoo fi ne du ko àtte ñu jël ko yóbbu ko CPI da koy àtte kon lii c'est juste de la théâtralisation des institutions théâtre la rek ça ne mène à rien et en plus ça montre leur irresponsabilité. Mhm. parce que non mais attention il y comment dirais-je de de de des victimes très très fraîches. Mhm. ñoo xamante ni ça ne date même pas de trois semaines. Mhm. mais la moindre des choses ça veut dire que ñooñu noonu. on avait même pas ouvert une enquête. ñooñu enquête sax defuñu ko ci. pour xam kan moo leen rey bu fàttali loolu gën a gën a ay info bi sax c'est ñooñu même pas quarante quarante jours sur terre sous terre. bañ leen dencee léegi matagul sax 40 jours nga ne da ngay la voté loi d'amnistie les les étudiants là étudiants étudiants wu. ñi ah, euh, UGB UGB. oui ñi dese ne woon bi Macky. bi Macky joxe. joxe kan euh, euh, kii ak annulé élection yi mais loolu c'est c'est c'est tout fraîche mm-hmm. loolu mënoo ko annulé nii mm-hmm. avec une loi d'amnistie mais heureusement la loi d'amnistie peut être abrogée d'une manière très très facile te en plus si tu regardes si tu fais une lecture politique. Mm-hmm. tu te tu te rends compte que. Mm-hmm. les députés de Yewwi même pas je parle même pas de Yewwi mais de Pastef. Mm-hmm. ils sont vraiment dans une situation très très de. Euh, euh, euh, euh compliqué quoi. c'est c'est très compliqué. ok da ngay gis que suñu voté. suñu voté ils vont trahir le peuple tamit. oui parce que quoi qu'on puisse dire mais bu ñu voté wul. nit ñi mën nañ leen ne yéen kat. ñii bu ñu desee kaso ba léegi yéen la yéen a leen bàyyi kaso bi c'est pour ça qu'ils ont choisi d'être neutre mais est que foofu tam maxu ñu bañ a voté ñooñu des ci kaso bi ba dëgg am est-ce que gënul également ñu voté ci loo xam ne dañuy taay population bi xam nga pour man parce que ña bokk ca ñoom nekk kaso intérêt population bi moo tax pour man la trahison mooy lan nga voté mhm. hmm. parce que tamit le fait d'être neutre dafa am une signification xam nga tey jii mhm. man te man bu doon may ñoom mm. su doon man may ñoom j'allais voter contre même parce que moo tax mm. quel soit alpha mm. ces gens-là ils vont faire passer cette loi-là ils vont se débrouiller parce que PDS am lu ko yitteel lu dul leen rek la am PDS moom loolu jaral na ko lu ne jaral na ko même s'il faut sacrifier toutes les institutions de la République mooy leen Karim bokk élection ñoom moom ay affaire de ñoom moom ay affaire de euh, euh, euh, bien séance ak Euh, intéressé wu leen. Eh, non déedéet na rafet na ñaaw seen yoon loo leen mën a lijjanti si li Yérim Seck wax naan même s'il faut tuer les quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais. si ñeneen pour sauver ñeneen. waaw mais ñoom quatre-vingt-dix s'il faut tuer donc day la loi va passer. maa ngi ñëwaat ci yow alors Lamine très rapidement ñu gis li fi xew yëpp ah justice taxaw nos autorités taxaw les forces de défense et de sécurité taxaw. ñu ne Sénégal dafa nekk ci benn situation boo xam ne dañu jóg pour renverser le régime de Macky Sall lu nekk ñu déggu ko fi ba tey lii lépp xew fi ñu bëri doon wax ne wàllum politique moo ko lal à 99 pour cent des sénégalais ne woon lii yëpp wàllum politique moo ko lal lu Macky Sall teg la tout simplement pour liquider son adversaire muy Ousmane.